rahmatullah patriote cher patriote maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar leen jox seen wàccuwaay eh, di wax président Bassirou Diomaye Faye ak président Ousmane Sonko jaaraama gàcce ngalaama buñ leen fale ba ak léegi nafiq yi ñi ngi feeñ gis ngeen waa Osan nee na nee na dafa am produit yoo xamante si nii dafa primé yiñ ci yiñ ci gën a wiise nag bokk na ci nen yi nen moom du primé day nëpp am na ween ay nen yu nëpp ñu def communiqué naan kun ci jaay nga indaale ticket bi ñu remboursé la seen techniciens yi ñu ngi xool yu périmé pour ñu génnee ko loolu li mu ne moom mooy ñi daan contrôler yu périmé yi daawuñu dem Auchan ci yeneen bitig yu ndaw ndawaan yi ak sénégalais yi la ñuy dem di contrôler waaye Auchan yi nga Auchan yi du ngeen fa dem di ko contrôler léegi nag danoo xam ne réew mi soppeeku na rupture ci lañ nekk ci ak moom suñu bopp kon waa Auchan yii nañ leen gën a bàyyi xel parce que lii ku leen gis xam ne yàgg nañ koo jaay yàgg nañ koo jaay parce que place yu ñu tollee Auchan ak li ñuy wax ne ci profession moom la ñuy def ci ak set ndekete dañuy jaay ay nen yu nëpp ak ay produits yu nëpp di dem a dem ba di ko déclarer di wax ne kun ci jaay na nga ñëw ñu rembourser la nga indaale sa ticket loolu France gën gën jóge ñoom ñemewuñ ko fa ñemewuñ ko fa ba di fay bind communiqué di def c'est honteux lii Sénégal rek lañ ko ñemee teg kon na ngeen jël seen ay responsabilité nit ñi contrôler bitig yu ndaw yi dañoo war a Auchan sax lañ war a gën a contrôler ay produits yu nëb donc vraiment Auchan Auchan c'est honteux quoi c'est honteux parce que respecté wuñ woon Sénégalais yi parce que état yi fi nekkoon leen respecté wu léegi nag dem nañ ba xam ne réew mi soppeeku na moo tax jaaraama président ba Bassirou Diomaye Faye jaaraama président Ousmane Sonko réew mi rang yi lépp ay jub jubal jubbanti